baax a baax di jiital ci nuyoo bi kilifa yi ñu fekk rawatina kilifa kër gi di wax ne rekk xëy na bu dul woon li président Ousmane Sonko nekk ci situation bi mu nekk nga xam ne daanaka même situation la ko Cheikh Bara moom mooy ñëw taxaw fii tey wax ndax euh, wax dëgg yàlla ni mu soppee ak ni mu fonkee jëmu jooju di Cheikh Bara Cheikh Baara yi nag dañu fees dell dell dell ci kaso bi régime yi fi jàll yàgg nañu dégg ñiy jàpp léeg-léeg ay benn nit di tëj waaye régime u Macky Sall rek lañ gisee mu singali di jàpp ay doomi daara ay médecin ay journaliste maanaam koor yi nga xam ne kenn xalaatul woon laal leen te fii ci réew mi daanaka yi bëri yi nga xamante ne nii daf fi taxaw am fi doole lool ci wàllum koom ci wàllum média ci lu mën di doon ci ñoo xam ne dañoo jóge ci dara di góor góorgóorlu ba taxawal empire ay doomi daara lañ boo doon xool quatre vint quinze pour cent yi ay doomi daara lañ ba ci kër gi ñu nekk bu ñu ñëwee nag singali leen ci ñoo xam ne kenn si ñoom deful dara lu dul ñàkk a d'accord ak ni système bi di doxe ndax ginnaaw Cheikh Bara ñi ngi wax ay kilifaam mais ani Cheikh Omar Bamba Diop dox dem seeti Ousmane Sonko lañ ko jàppe a ah, mu ngi àndaloon jàpp ma turam beneen sëtu Mbàkke Mbàkke boo xam ne dafa jóge woon vacances Turquie ànd définitivement dans une dictature loolu lay bañ a dégg mais loolu moo am ci réew mi ndax dictature weesuwul léegi boo ne kii mbaxana bi dafa weng ñu jàpp boo posté loo mën di posté donte sàmm nga ba sàmm sa kàddu li nga posté sax ñom buñ la bëggé japp dal dañu melni ñu yor lido rek ki faaw ñu japp ko ndax moy jouer rôle bi ki faaw ñu japp ko té suñu waré def sen ñaawteef les journalistes yi ñuy jàpp de voix les chroniqueurs, chroniqueur pièces ñuy jàpp xool pièce euh, parti bi ainsi de suite c'est-à-dire que si vous demee ba plus de 1000 personnes daanaka boo jëlee ñoom ñëpp même motif lañ am nga xam ne appel à l'insurrection atteinte à la sûreté de l'État acte xaw ma de euh, manœuvre et cetera wala association de malfaiteurs ñëpp même ça à dire que léegi par loolu la ñu dugal defeere nañ 22 démb defeere nañ 12 tey ainsi de suite di dugg ci biir kër yi di loxati nit ñi ngeen yaakaara ne nekkuñu ci dictature waaw pendant ce temps ana ki taxaw ne dañu war a rey 90 pour pour cent des sénégalais ana ki taxaw ne dañu war a rey Ousmane Sonko. ana ki taxaw na ñoom di jabat ji dañ leen a rey ana ñi nga xam ne dañoo jël xaalis di ko soppi ana ñi doon defar foo passeport ana faux médecin yi mais mun ne gis nañ ko ci réew mi lu toll ni loo xam ne boo àndeek nguuru mag sàll lu la neex def ko te dara du la ci fekk mais boo nekkee ci beneen boor bi quand di beneen boor bi nag mooy su may wax nguuru Macky Sall jéggi na régime Macky sàll APR ak bennoo Bokk Yaakaar système bi la te système bi nag lu nekk nga laxasu ca biir lu ne koor bu ngeen xalaat mais boo ca nekkul bokk ci ñi nga xam ne yàlla may na leen seen xel mën a ràññee ba xam ne problème bi am nekkatul problème mu nit mais problème mu système la ngay taxaw di gën a leeral xelu sénégalais yi loolu da ngay nekk cible CEDEAO dañu wër ñu ne dañuy intervenir parce que dafa am ay coup d'état militaire et cetera mais coup d'état militaire du xëy rek juddu coup d'état constitutionnel moy indi coup d'état militaire wala ñu lam réew nga wara jël doole jën tek sa loxo yépp ngir soppé ko nekkinu askan wi nga décider ne da ngay jël doole jooju ngir tecc ci askan wi ngir di mëna jël alalu askan wi di ko say patron yu nekk bitim réew ndax ku déglu médias français nous ñu waxee fu melni news nga xamné ne ñëpp xam na ko l'un des plus grands chroniqueurs yi fa nek il n'est pas question France di bàyyi Niger parce que sinon ça ça devient catastrophique la politique énergétique ou France mais ci Niger la le Niger la ko Non le la melé la mel Sénégal non la mel ci Côte d'Ivoire motax xol que leen ñan ñoo nek di défendre ngir. Euh, ñu def euh, comment dirais-je ñu wàcc armée bi xeex ak Niger gis nga Afrique dañu yeewu te ñoom war nañu xam ne amul benn doomu sénégalais boo xam ne d'accordul ci li ñuy def ñoom mu ragal leen lu toll ni tarfatal ay ni bu ñu yaakaaree ne mën nañu xupp nit ñi ba duñu wax d'accord bu leen neexee ne kenn dootu fi marche bu leen neexee ne kenn dootu fi conférence de presse bu leen neexee ne kenn dootu fi réunion mais loolu yépp askan wi la neex amul benn nguur ak nu mu toll boo xam ne mën na jàmmaarloog askanam am ci ndam amul mais nag tànk askan waa ngi koy nangu jàpp ne kii la yeggseegul ci man ay nañ dem rek li wér wóor foofu lay daanelee mooy ñii nga xam ne jàpp nañ leen ña ngay résister ci seen manière ndax du Cheikh Bara kese moo nekk ci grève de fin ba am ay torof torof Hannibal Djim mi ngi ci grève de fin bi ko yaayam seetee mënul yegg ci moom ndax ci situation bi mu nekk de loin la koy la ko la koy séen Hannibal Djim deful dara ñëw Sénégal ngir takk soxna war fi toog ab diir delluwaat ñu jàpp ko di wax ay waxi Kopar Express ay financé Pastef ñoom bu ñu xamoon que ni

bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin asalaamaaleykum monsieur le directeur général maa ngi lay nuyu di nuyu waawal Walf yëpp di nuyu sama nattaango yi nga xam ne ñoom laa fi fekk may jël nuyoo bi teg ko ci loxo coordinateur F24 mu yóbbaale ñu ñun ñëpp parce que parti yëpp mën nañ confondre ci moom ak euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk di leen sant waa Walfadjri di leen delloo njukkal di leen wax ne am ci kon ku ñuy rus muy yéen ruse leen seen baay bu baax ba seex muy Sidi lamit ñas ruse leen askan wi nga xam ne ñoom ngeen nekkal ruse leen ngeen bàyyi la ngeen doon def yépp ñëw ànd ak askan wi ci héritage bi nga xam ni moom la Sidi Lamine bàyyi Cheikh Bara nag moom dafa mel ni du benn nit a ko complot benn lobby la boo xam ne dañoo xamul ni jamonoy doxe ñu ni ku demul école do xam dara mu ni mom intellectuel arabe la bu dëkk ci réew mi bokk ak ñepp comme ni ngeen ko waxe léegi bokk ak man mi bokk ak Ousmane Sonko bokk ak ñepp ñi nga xam ni ñoy nit ñu baax am sëriñ sëriñam fonk ko lool mbir mi sëriñ bu nekk wax na ci sëriñ bu nekk ñaan na ndax taxawaayu Cheikh Bara Cheikh Bara nekkul ci lenn lu ngeen koy sikke luñ koy xeebe kon du nekk wal fajri parce que bu nekkoon ci lenn luñ koy xeebe Cheikh xam nañ ci yow fulla ju day ne lu sa bàyyi nanguwuloon doo ko nangu mu nekkal nag askan wi di jariñ askan wi taxawu askan wi waaye dafa am benn nit boo xam ni ku ko jege ñu seet téem na sàkkal pexe bu tudd usmaan Sonko ku ni moo baax ñu xoole la bët beneen ku ne jàmbaar la ñu xoole la beneen bët pour pourtant yàlla de noppi na te waxul kenn dara lii ñuy def naan nañ libéré Cheikh Bara dañuy sabablu rek te sabablu dañ ko sant ku nekk waaye yàlla noppi na parce que koo xam ne laa teg bët yàlla may la ngay dund ba léegi te fu la yóbbu doyalul fu la yóbbu doyalul raje nit mu toog ñu ne day yalwaan yàlla suturaal ko mu dem ci assemblée di fa liggéey liggéey boo xam ne convaincre na ñëpp te wax naa ko benn kilifa dama ne kilifa gi man bi ma nekkee ministre 2005 mu ne ma waaw ma ne ko woolu woon nga ma te booba fekk na ma politique ba nekk ministre te booba kenn xamul fu Ousmane ko nekk kon lii mu am yàllaa ko ko may nañ ko nangu kon. waxuma la moom ci boppam ñiy jéem nag lay wax de ñiy jéem te fàtte ne yàlla noppi na dama ne la waxuma la moom ci boppam waaye dañ ni ku ku ni Ousmane Sonko reconnaître naa li ko yàlla def ñu faagaagal la loolu nag finalement dootul doon sa digganteeg Ousmane Sonko sa digganteek yàlla la yéen a ngoog yàlla ngoog yéen ngoog yàlla ngoog yéen yàlla ngoog te nag commencement la te oustaz Assane war ngeen di wax nak war ngeen dem ci diine ji ndax dañ ne soo rëddee su yàlla rëddee nga far mu rëddaat nga far bu bu ca tegoo ñetteel ba ku muy far yow miy far lay far yow miy far yow lay far mu far jeex xanaa bu la faree wax di jeex xuloo dootul am wasalaam abonnez-vous les Sénégal abonneel ci Thiowli Sénégal. abonnez-vous Thiowli Sénégal. abonnez-vous Thiowli Sénégal. abonnez-vous Thiowli Sénégal. ndax man li ma soxla ci xibaar yu wér te wóor Thiowli Sénégal.